waa Info TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar nag damaa daal di seet ci sama mag sama sa damaa daal di seet si sama frère sama tonsa couple chic waaye <laughs> su ko defee maa ngi di nuyu bu baax ma commencé ci kilifa gi ah, ah monsieur Sy la bu tey de xaw naa laa rey lekk rek laa def. acca acca maa ngi noonu. kon xam nga ne tey la Saint-Valentin ah fête des ku nekk rek ki nga bëgganteel da koy bëggal du noonu la. mooy dëgg ngi noonu sama mag ji sama xarit noonu laa koy waxee. ngoone nan nga dundee Saint-Valentin bi. waaw Saint-Valentin bi dañ koy dundee comme toujours rek comme ni ñu koy dundee chaque jour ndax ñun suñu bëggee dañ koy euh, fésal chaque jour su nekk bu ñu gisantee da naan ñii dañoo mel ni ay fragile ñu baal ma ci kàddu gi. donc noonu la ñuy dundee comme ni ñu ko dundee tey mooy tey moom dañ ko dund ak liggéey ak rigueur boole euh, waaj projet bu bees donc noonu lañ ko dundee Saint-Valentin bi guddi gi nag ñoo ko moom su bari kàddu maa du yaayee tey. laay lu neex. <laughs> lan nga ñu mën a wax ci monsieur. waaw monsieur moom comme chaque fois rek ni ma koy waxee dafa bari li ma ciy wax dafa bari donc li mu li mu li nekk ci moom aussi dafa bari li tax ma taamu ko ànd ak moom sëy ak moom yàlla kese tax bari na ndax li nekk ci moom macha allah. Mm-hmm. bari na. Mm-hmm. baax na gën na mën na supporter jigéen mun naa nekk ak jigéen bu ne. barki Seexul Xadiim mën na nekkal jigéen bu ne te du ne am ndax noonu lañ ko yaree donc loolu boo ci dalee yàlla suñu borom dimbali la nga am boroom kër bu mel noonu dangay sant te fas yéene sëy ba sëy waaw acca monsieur deew na <laughs> monsieur si lay wax euh, ñu ñëw ci yow lan nga ñu mën a wax ci sa jabar euh, tout d'abord damay dama leen di gërëm ci may indi par tey ma a wax ci moom ku baax la. loolu laa ko waxoon. nit ku gëm yàlla yàgg naa ko wax. waaw nit ku exemplaire la aussi. lii wut ci jabar aussi mi ngi ci moom. lii wut ci jabar aussi mi ngi ci moom. franchement. sa xamante ak madame fan la ak nan la. <laughs> yàgg na de. Mm-hmm. yàgg na. yàgg na vraiment yàgg na trop ñu xamul nag dañuy yàggal peut-être ci moment yi muy siiw peut-être ci laa ci laa ko xam quoi mais boo koy xam yàgg na trop franchement dëgg yàlla. yàgg na mais da ngaa ragaloon quand même. <laughs> ah dafa la dara def daa daa daa ragaloon quoi maanaam. Uh-huh. yàgg nañu xamante ay at après maanaam maanaam suñu génn daal deux mois la yor. Uh-huh. mais yàgg nañu xamante kam. yàgg nañu xamante yàgg nañu lobante aussi. noobante ah moom noonu woon na mais dafa ragaloon. d'accord monsieur Sy lan moo tax nga ragal. waaw man boo gisee xam nga da nga doon bañ ñëw am defet. ku am ña ku am ñaar ngay ragal ko. da nga doon bañ ñëw am defet. da ah? nga doon bañ ñëw ñu ne la non non am na ku fi nekk. waaw man ragaluma loolu moom vraiment. Mm. seeti jigéen la wala wax sa soxla ñu ñu refusé la. Mm. ma ragaluma loolu. d'accord ñu bari ci góor ñi loolu la ñuy ragal xam nga. Hmm? ñu bari ci góor ñi loolu la ñuy ragal. que dañuy dem diw am na ku muy génnal. ñu toroxale wala ñàkk leen kersa defet la ñuy bañ. non bon loolu defet ku ne am nga ce choix. Mm-hmm. sañ nga ñooy def sa proposition. waaw mm-hmm. wala déet la rek am. Mm-hmm. te kenn ku ne doon ne day am suñu bàyyi wax sama benn waxee bi ko ko sa papa. d' accord doxaa dañu daa soxla. ayca lan moo neex ci madame tey ba nga jël ko soxla. Euh, ay qualité yu yu franchement yu yéeme quoi mi ci moom. wax dëgg yàlla. mooy wax dëgg te yàlla tax am na ay qualité valeur yu ne ci yàlla mm-hmm. mosuma di ko waaw nit ku baax la ku ma yëg la franchement parce que li mu duggee ci man eh, jigéen bu ne sañ nga sañ nga gis lu lu mel noonu nga nga nga proposé lu mel noonu dama laay gis bëggal la sama bopp gis ni par exemple bon liggéey moo ñu boole quoi en fait. avant mm-hmm. liggéey moo ñu mës boole. liggéey dëgg yàlla mm. ci liggéey la xamante ba jusqu'à présent nii tey ñu toog nii ci liggéey la ñu jóge encore mm-hmm. def naa ni yow nga ci am lu leer la ci ci laa ko ci ci ay fayda laa ko fekk fulla am jom voilà lu ma fekk la ci moom quoi donc muy nit koo xam ne aussi franchement ah ñoo mën a seede ci moom jigéen bu baax dëgg la dëgg la dëgg moom bala bon ñi muy liggéey noonu aussi témoignage benn bi ma koy doog a tag bu ne woon ma téléphone. ndeysaan benn baat bi la. wallaahi nit sax des fois xëcc ma ci vraiment du du du du dara nag mais en tout cas na nga jàpp ne am nga di wax te ci milieu bi ñu nekk ñëpp xam nañ. c' est pas facile li ma bëggoon a wax mooy milieu bi nga xam ne ah des fois da ngay guddee chaque jour dama ko koy wax yombul benn yoon. des fois ñu wala ay guddi des fois nga war a togg añ est-ce que tamit loolu di ci ànd ak moom parce que dañu naan ah la majeure partie si góor ñi suñ la takkee après dañuy tere sa liggéey yow gis nañu yaa ngi koy mais loolu tamit yombul. waaw bon liggéey la rek ah comme yeneen liggéey de franchement liggéey nag terewu ko def terewu ko def euh, nu mu tuddati encore ko def. Euh, ménage mm-hmm. franchement bañ na ko ba ndox dëgg yàlla. du bëgg sax ku may may ndox mayal tiw ndox non moom mooy jóg may ma ndox ndékki moom ma koy defaloon hmm. reer lu ma guddi guddi su ma jóg su ma guddee ñëw li jóge liggéey wallaahi mu doon quatre heures du matin day yeewu defal ma lekk ci jóge na bokk war a am ma war a teel a dem aussi wala yëpp dëgg laa fajar su ma war a jot ma doo fi génn te ndékkiwuloo avant ngay dem parce que bëgguma nga dafa ngay dem ñu lay defal ndéeg ñu mel ni jigóoro sa sa sa mm-hmm. bokk ci ay valeur est-ce que nekkul dafa fii moo tax ñu bañ soo <laughs> xam ne sax mm-hmm. non bon yooyu dafay marqué quoi des fois mm-hmm. voilà si te yooyu dafa am solo am solo am solo lan nga ñu mën a wax si loo xam ne defal na la ko ci lu baax loo xam ne doo ko fàtte foo toog tey loolu dina ñëw ci sa bopp bi bi ngeen nekkee ba léegi mais ne lii duma ko fàtte su ma doon wax tey li ma ngoone defal ci lu baax lii laay wax. Hmm. lu ci mel lan lan ngay fàttaliku loo xam ne doo ko fàtte. <laughs> waaw bare na xam nga bi ci am solo mooy yëg bi xam ni kii sa borom kër la nga jox ko bu mu tollool c'est très ci ay diggante. te mi ci moom. benn. bon li daf koy faral di wax dafa nekk ci moom euh, jëkkër doo ko teg place jëkkër waaye bu ñu amee problème du ñàkk de. Mhm. amul nit ku ne doo problème ci biir ménage am wallaahi du xaritam bu ko yëg yaayam jege na ko trop yow la musuñu ate musuñu werante ba yaayam wallaahi. très sérieux. yéen a ngi bëgg a yàgg. waaw. macha allah mais musul am yàlla mi ñu tiimal la ko kalaame musuma kalaame. maanaam nekkul lu mu am ci problème néegu sëyam rek da koy génne wéje ko ci mbedd mi discret la ci loolu daf ci sérieux. dafa am secret. waaw non trop. macha allah lu ma yem nag lu ñu jàppante. wallaahi kenn du koy. ndeysaan kenn copine am yi amul rek par exemple amul. su ma yàlla rek tax may wax. Mhm. très sérieux. ndeysaan sulaw. macha allah. sulaw ceeb bu ne lii ngay ñaan sa borom kër toog wax ci yow lu rafet et c'est pas facile day wax parce que bariwul góor ñi koy def. Mhm. ndax xam nga dañ ñaan jigéen soo ko jaayee rek dafay rongatu ko yow nag jayoo ko parce que ñu seetlu ne même sa interview yi ngay def yëpp du rafet lu baax rek ngay wax ci moom. si parce mhm. dafa nekk ci moom. macha allah dafa des fois dafa naan man nan nit nan la mën a bëggee ak nit mu ne dafa bëgg nit par exemple eh, ñuy marié deux jours. wala benn ci moom dama koy dégg ci moom. d'accord. nit koo bëgg. Mhm. nga mbay moom deux jours. Mhm. jéeg ko def. ah <laughs> man c'est franchement. yooyu ci la dama koy dégg ci moom. nee na jéeg du ko def. Hmm. lu tax loolu. ah parce que warul am. Mhm. sëy complicité la. Hmm. donc boo yoree sa borom kër du ñàkk parfois mu def la lu la naqari wala nga def ko lu ko naqari. mais communication dafa am solo bu baax a baax ci néegu sëy donc waxtaan leen lu mënta ànd lu mënta tàggoo tàggali ko dañuy ànd. ànd ci bi muy rafet mais tong sa jëkkër deux semaine trois semaine di ko romb de gauche à droite doo ko jox mu nekk doo ko defal ndox mu sangu ana sëy bi ana sa jonge yow ana sa oyof yow ku jigéen ki. loolu la. amu fenn. d'accord ah donc liy waral mooy li xew mooy ngeen waxtaane ko mu jeex ngeen kafre harmonie dafa neex. Mm. kafre dafa neex man en fait man loolu laa man néeg dafay neex dafay am harmonie ambiance. Mm-hmm. loolu la des fois damay dégg ñu naan ñu nga xam ne dañoo am jëkkër comme que woon amagu ma <laughs> suñu nekkee ak seen jëkkër yi dañu naan fàtte nga ba ñu awee fii wala fàtte nga ba ñu jaayee lii wala ba ñu defee lii yow lan ngay fàttaliku loo xam ne di nga ko demba bu taxaw di la reetaan. <laughs> lu muy fàttaliku moom euh, vraiment man ak moom bari na parce que man ak moom ay ay complicité la dañu am complicité. fu ma dem foo ma gis dañ koy wax sax foo ma gis dañ koy gis. man sama jëkkër mooy sama xarit am naa ay xarit nag am naa ay xarit mais sama jëkkër sama borom kër la amut leneen moom la à part moom amut leneen parce que bi ma xasee ba dugg ci moom ci moom laa dugg donc gëm ko. nopp ko lool nag dama koy wax à chaque fois man dama bëgg sama borom kër. fas yéene koo sëyal ba géej gi des walaat donc loolu li ñuy am ay ay bànneex mooy ëpp. <laughs> donc loolu yi ci yi ci yi ci am dafay dafay bëri dafa am benn jour boo xamante ni dañoo ànd man ak moom ndeysaan may dawal bi may dawal ñu jugee ci autoroute bi ñëw ba ci kii bi parce que man su may ànd ak moom di dawal rek moom du may yoon yi léegi nag man du ma ko nangoo comprendre. day wax li mu ne ko mooy yow yoon bi fii la su ma demee ba réer nag soo ko wax ne ko expliquer yoon bi léegi nag ñu dem ba wàcc rond-point bi pono bi deñ léegi bi pono bi dañee si digg tali bi waaw si góor gi si digg tali bi léegi nag après gendarme bi ñëw jàppale ñu oto bi léegi ñu ñu jaaxle na xamatuñ fan lañ jëm donc moment boobu boo koy xalaat ak ki nga bëgganteel ba pare mi ngi sa oto mi ngi yàqu mais ko quoi parce que yaa ngi ak sa jëkkër yaa ñu ànd dem doxantu jënd màdd foo ñu fekk ñu ngi jàppante suñu loxo yi donc ba résoudre loolu lijjanti loolu taalal suñu oto ñibbisi donc mu nekk loo xamante ne daf ma marqué man dama ba dama doon ñaan yàlla góor gu mel ni moom. góor gu ma mën a comprendre. daf lay taxawu fépp. waaw taxaw ma fépp nag. ci boor bu nekk. Mm-hmm. di ñaan képp ku ñuy seetaan mu ñaanal ñu yàlla musal ñu ci seytaane. musal ci cat. lépp luy yàq wala luy rone yàlla na ma yàlla musal ci loolu. man ak sama borom kër. vraiment parce nag neexul ba neexul nag waaye si saa waane ah. Mm. dëgg neexul ni ko olof yi di waxee ni ko waxee lii xaj lii bari ci xaw ma la. di duuf ci nag bi xajo ci kii. voilà mi ngi noonu. Mm. su ko defee ñu daal lay bàyyi la koy wax ci Saint-Valentin bi après ñu tàggatoo. <laughs> ah lan laay wax na man li may wax na xam man damaa bari wax. damaa ba bari wax boo waxee yàqul dara chaque jour ma wax. Mm-hmm. léegi kër bañ na ko ba fi nekk nii. Mm-hmm. dootul déggati. ñëpp kër la ñuy wax kër. waa léegi kër. Mm. poète. positive, voir mon cœur félicitaire. Je t'aime comme poisson qui aime l'eau. Je t'aime comme. comme mango baxal. en tout cas daal je t'aime. macha allah si yow loo koy wax. dafa kontaan bu mu mënul wax. ah di ko souhaiter le courage ça va dérouler le jour. Mm-hmm. donc euh, je pense que di chaque lu ñu war du benn jour ci ci ci ci jéegi. surtout surtout jéegi. ana kado yi kado euh, yi yi moom dèjà kado kadoom jo jot na ko moom. mais surtout ci jéegi ma lancé foofu appel. ok Saint-Valentin du benn jour kese. du benn seen kese maanaam sa jëkkër xam ni tey la jour Saint-Valentin nga jël dem jël la sa dara bu weex def say rouge blanc loolu boo ko defee góor mooy dafay da nga koy ràññeel li bés. góor doo ko ràññeel. d'accord ci loolu déedéet. jéeg dafa war a parfois samedi sax mu defar néegam ba mu baax bu jëkkëram wàccee mu nëbb ay bëtam mu ngi nii bu wàccee mu nëbb ay bëtam dugal ko ci ba ci biir néeg bi taal lampe bi mu gis environnement néeg bi loolu dafay baax ci diggante ñaar ñuy sëy parce que dafay dundal ma mbëggeel lépp luy dundal ma mbëggeel ñu koo jël at ba at kamal d'accord acca moo ngi noonu moo tax may la ñaareel damaa jàpp <laughs> ñaareel da koo jàpp moo ko wax moo ko sañ mi ngi noonu jàmm comme ni ñu ko waxee di ñaan yàlla njaboot gi daal di dund ba màgg daal di teral yóbbu sama tons bi màkk ci barke Seydina Muhammad yow tamit a ah, alal ji daal lay wër te ah, ma ngi séddale sa ginnaaw jaa ngeen jëf merci beaucoup